kon maanaam ay noonam rek la nekkal ci kaw suuf muy bakkanam boppam bi jiitu ci moom ba xàmmiwu ko boppam nga xam moo soxla lekk ak naan bànneex ak nelaw ak nooflaay kooku mooy bakkan te it mi ngi lënkaloog seytaane ak bànneex ak adduna mi nga xam ne moom la nekk ci biiram kon doomu aadama ku war a bàyyi xel boppam la sun borom nag ci tukki boobu nag nga xam ne jóge nañ ci kaw ba wàcc ci suuf kenn ku ne am fi jaarawaay ku judd ku ne am nga fi jaar jaaruwaay ba ba ngay delluwaat ci sun borom subhanahu wa taala sun borom nag mel ni ku leen di jox ay conseil di leen dénk loolu moo andi yaa banni aadama yim tegale fii nii yaa banni aadama qad anzalna alaykum libaasan yuwaari sawaatikum wa rishan wa libaasu taqwa dalika xayr waaw maanaam dalika min ayatillahi laallahum yaddakkaroon ci la sun borom tàmbali nag di leen dénk ne yaa bani aadama yow doomu aadama xam leen ñun yàlla day xad anzal naa wàccee nañu aleykum ci yéen libaasan ak col col goo xam ne yu waari dana suturaal saw aatikum seeni awra wa rishan ak yére yi waajtaay yére yoo xam ne des na ko mën a waajee daane loolu lépp nag da ngeen xam ne wa libaasu taqwa ragal yàlla daaliku loolu xayrun moo gën qad ansalna aleykum libaasan yu waari saw aadikum wa riisan loolu yaram moo ko moom mooy colug yaram suñ borom ne wàccil nañ leen ci kaw suuf ay koddaay yu ngeen mën a suturloo ngir làq seen awra ba wàccil leen sax koddaay yoo xam ne romb na loolu da ko mën a def yére waajtaay mu nekk yëre yu rafet yoo xam ne da ko mën a génne ci say nawle qad anzalna wàcce nañu aleykum ci yéen libaasan col mu yére yu waari yu dana suturaal sawaatikum seeni awra wa rishan ak yére waajtaay yoo xam ne danga ko mën a taarloo ci boy dem ci say nawle daane waaye nag wa libaasu taqwa colug ragal yàlla nag daalik loolu xayrun moo gën mhm, daalik loolu boo ko gisee min ayatillahi mi ngi bokk ci mandarga yi ngëmi suñ boroom yi laallahum ndax xañ na ñoom yaddakkaroo nañu fàttaliku doomu aadama dañuy wax ne maanaam euh, koddaay mënta ñàkk ci moom noonu ko Sëriñ Tuubaa doon misaale ci tasawudu subbaan dafa misaal imaan islaam ihsaan ci jëmmi doomu aadama daan li ñuy wax imaan moo tolloog ruux ci doomu aadama ruuxam waaye li ñuy wax islaam nag moo tollook maanaam yaram yaramu doomu aadama muy jëmmam ak li ñuy wax ihsaan nag moo ay yéeréem di wane ne islaam ak ihsaan ñàkk ci nit faaw rek nga gëm yàlla ngir nga mucc waaye gëm yàlla doyut faaw nga am islaam muy nangoo jëfe santaane yàlla daane loolu it doyut mu ànd nangu koo sellal bala nga cee def yàlla rek tax loolu mooy imaan islaam ihsaan muy wane ne benn mënu bàyyi moromam daat koy misaal nag ci jëmmi doomu aadama daane doomu aadama jëmmam ak yaramam maanaam doomu aadama ruuxam ak yaramam ak colam yooyu mënta ñàkk ci nit ngir nit mën a mel dëgg-dëgg na war a mel daañu ne ruu mënta ñàkk ci nit bu fa nit ka du dund bu rii ruu dikkee itam yaram mënta ñàkk kon ruu dafay ànd ak yaram waaye daan ne buy ruu amee ànd ak yaram te ko daayuwul maanaam solul ay yére kenn du ko mën a gis waaw nit lum mu rafet rafet bu taxawee yaramu neen kenn du ko mën a xool. kon gis nga yéere mënta ñàkk ci nit col dañ ne maanaam bàyyi mu moom ñàkk col mooy mooy mooy colom maanaam mooy taaram waaw waaye nit moom bu soluwul rek mu doy waar maanaam rab yi ni leen yàlla binde noonu moo rafet ci ñoom boo leen doon jéem a solal yére sax mu ñaaw waaw fi ne rab yi noonu leen yàlla binde rek ci maanaam seen awra di feeñ ci bit loolu loolu ñaawut ci ta taar la ci ni leen yàlla bind la bokk ni ko borom xam-xam yi waxee waaw waaye nag doomu aadama mooy koo xam ne mënut a ñàkk lu mu lu mu suturaale yaram waaw. ba ci biir aljanna sax lam njëkk a def mooy yónni jibril mu jëli fa ay yére solal leen ko ba noppi ñu door a dugg aljanna waaw loolu mënut a ñàkk ci nit. moo tax mu ne ñun yàlla wàccee nañ ay koddaay yu ngeen mën a sàngi seen awra yemuñ ci waaye sax fàggul nañ leen yére waajtaay yu ngeen mën a taarloo. suñ borom nag bu ne wàcceel nañ leen mooy day jël maanaam matière yi def ko wàcc feeñal ko ci suuf ba noppi dugal ci xelu doomu aadama yi fañ war a mën a jaar def pexe ba loola sotti fekk loolu lépp nammeelul suñ borom